ñu dellu ci dernière question bi. Mm-hmm. tënk première partie bi. Mm-hmm. xëy na sànq bi ngay tudd ci affinité affinité yi nit mën a am mm-hmm. par rapport ak dimension yooyu sax. am na benn seetlu boo xam ni def nañu ko. te mooy euh, ci wàllu xale. ci ñu mu tudd tuddee xale si zaahir. mooy nga gis xale boo xam ni dafay mel ni dimension spirituelle bi dafay xaw a am benn euh, prépondérance suñ ko mënee tudd. par rapport aux autres dimensions. loolu lan moo koy expliquer d'abord lan ngay woowee prépondérance. maanaam mu nekk xale boo xam ne. Hmm. dafay mel ni particularité am. Hmm. mooy aspect spiritualité bi. Hmm. dafay xaw a euh, ëpp doole. yeneen dimension yi par rapport ak âge am surtout. phénomène bu ni mel nan lañ koy mën a comprendre. xam nga looloo tax ma laaj ci li nga déggee prépondérance parce que man ci loolu prépondérance loolu au contraire c'est très normal ci xale parce que ruux da ngay bàyyi xel ni ruux du am âge temps tënku espace tënku ko leneen tënku ce qui fait que par force moy gëna a mature yi si des léegi ak famu toll normalement aisance bi muy wara am ak domaine spirituel mais kenen waru ko mën am loolu tax ñu na xalé yalla ko teyel bopom parce que communication bi fofu la gëna yombé dara raxagu ko moo tax c'est très normal man kay li ma doon jàppee problème mooy le contraire moy xalé bo xamni amul benn réelle connexion ak so ak son niveau spirituel lolu kay mo doon doon lu doy war mais gannaaw lolu c'est très normal. mu melni réponse bi dindina sax euh indicateur principal bi muy âge. Mm-hmm. mag mi nga xamni aussi bëgg na dabatal mm-hmm. lu lu lu lu mu lu rëcc ci dundam. Mm-hmm. kon mën na tënk boppam ci walu bobu non bien sûr c'est-à-dire que ci cadre évolution na lenn leer il n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard ndax xam nga li ñuy wax naan yàlla defal benn tànk jëm si si moom mu def ñaar ñëw ci sa ñëw ñëw ci fekk ñëw fekk si la gis nga noonu nga koy déggee gis nga amal quatre-vingt-dix ans mu wóor la ni quatre-vingt-dix ans Yeb da nga ko caaxaan mu wóor la ni ñaari at da moo la dese ci sa dund waxuma la ñaari at yi waaye ci ñaari fan mën nga ko dabaatal day fekk ni opération boo gis dafa am coût dafa am risque dafa am enjeu c'est très important boo xamee coût bi te mooy li muy jar na la ko jaram boo xamee risque yi nga calculer en accordance boo xamee enjeu bi te mooy nga dabaatal li nga war a dabaatal

maam indi sànq ci ne di nga gis ku dund ba dugg bàmmeel te enjeu boobu prendre ko en compte enjeu boo xam ne mooy déglu boppam déglu communication boobu di dox diggante ruux ak nafsam ci communication boobu noonu nit ki war a teewlu déglu boppam ba mën a arbitrer loolu nu ñu ko war a mën a déggee. mais war média war a euh, réguler rek débat bi am diggante conscient inconscient bëri na ko dund ba dugg ci bàmmeel xamoo sax ne nekk waxtaan boobu am na mais gis nga mën a euh, réguler débat boobu bokk na ci li permettre nit ki bu ëllëgee mu mun a def fusion bi entre les deux ndax gis nga fusion balaa muy am il faut que réconciliation am diggante lii sa égoïsme ak lii sa altruisme mais nag problème bi mooy bu tolloo wu ñu doole moo tax il faut nga équilibrer leen ba pare ba ñu tolloo ku si nekk mën affronter sa morom correctement et légalement foofu nag ci la jaxasoo bi di mën am parce que ci biir genre bon ken mënu ko wowe combat bu mu jeex ken mënu ko wowe aussi union bu mu jeex kon nak liñ ko mën wowe moy danse ci bir danse bobu ci le ko si nek di xamé bopam ci ki ci dess ndax am fo foo conscient mën na altruiste waye raison wu altruisme bi égoïsme la et pourtant am na inconscient d'une égoïste fait que raison ou égoïsme bi altruisme la faire une ressemblance comment di commencer feeñ di commencer feeñ di commencer feeñ ba kenn ku ci nekk gisatoo sa moroom sa bopp nga ce ñu jaxasoo nag ba jeex Faut faire la là on parle d'identité absolue capacité inconsciente à contrôle bi mu am ci nit capacité yi inconscient à ak contrôle bi mu am ci nit subconscient ak information bi mu denc lépp andal nekk benn entité mentale toutes les capacités moo xam physique la moo xam immatériel la nit ki jot ci nii au bout de ses doigts ci waxin mën a contrôler lépp mën a décider lépp mën a doxal lu ko neex ci boppam loolu rek la toll <laughs> bu fekkee nag léegi diggante su beeg roox mais loolu pourtant góor gi indi na ko sax mariage la mariage la ruux bu nekkee boroom kër naf nafs nekk soxna mais xanaa xamu ni ku si nekk am na lu ko war ci moroom ji ni mu amee ci nafs ak ruux noonu la war a amee ci góor ak jigéen ndax ruux bu fekkee objectif am mooy fexe ba mbindeef gi jëm kanam gën a jege boroomam mais objectif am na kon nag léegi rôlu nafsa lan la war a mën a doon maanaam nafsa bu ñu yar rôlam nag léegi muy assurer les arrières fexe ba bu roox lu avancé am sori sori sori bu waree soxla def retraite stratégique am na benn flanc bu mu mën a reposer boppam gis nga même rôle boobu la jigéen war ci góor Je tax bëgg comparer ñaari da nga déggul ko bëgg comparer ñaari la leen da nga déggul ça n'a absolument rien à voir C'est un rôle c'est une fonction moo bokkul léegi nag xam nga lii finalité bi la waaye ki nga xam ni waxuma la waxtaan diggante bakkan bi mais ci conscience bi mu am discussion bi mu vis-à-vis ak lo sax def ci bay sax war yar bakkanam mu war mais ñaari la fay <laughs> c'est pas possible c'est pas possible motax lepp départ ci état de conscience je dis bien état de conscience bokkul la conscience bi mo de leg, état de conscience je moy xam lan mo daje ci yow xam lan mo le composé xam lu ci nek ban fonction ban façon lay fonctionner xam sa roh fan la tollu xam sa nafs ci ban état la tollu momit fek li yeb dajalé woko woo xalaat yaakaar walla dina am fenn foo jëm ci sa évolution personnelle c'est pas possible parce que il dafa beaucoup ci composant de base yi maanaam day mel ni tey nga auto qui n'a bu amul batterie taalal fii ba suba lu tax c'est aussi simple que ça composant bu ci le fonctionnement bi yàqu motax il est absolument impératif nit ki nango def exploration bobu nango def expédition bobu nango def étude bobu ci bopom bu demee nag ba am information yi am xam-xam gi ci lay commencé moom nag mën a agir léegi ci environnement boobu mais loolu yëpp yitte la <laughs>